jërë ngeen jëf mbokk yi ba tey comme niñ leen ko waxee ñun fii ci Kër Massar waaye fii ci bis yi nga xamante ni kuréel Wakana Haqqan ñoo koy amal ñu doon ay jàmbaar lool ci bis bi ren ji nag doon juróom-benneel bi yoon ñu koy taxawal fii ci Kër Massar ku fi ñëwati rek saxul sedd bu baax a baax ci seen taxawaay bu am solo boo xamante ni macha allah rafet gi muy rafet waaye ba tey ñu fii nag ci waañ wi doon pàcc ci liggéey bi nga xamante ni mooy kuréel Wakana Haqqan ndax ku wax bisu xasida di nga wax waxu bernde ngeen gis ni seen taxawaay ñu taxaw ak Serigne Khadim Gadiaga moom it kenn dootu ko présenté te ci liggéey bi muy borom pas-pas ak borom yéene xam naa ne duñ ci guddal dinañ ko jox léegi ngir taxawaayam ci wàllu waañ week wàllu kuréel gi buñ ci jógee ci moom xam naa dina jébbal kàddu gi soxna kenn moom it wax ci turu mboolem soxna soo xamante ni yaa ngi bokk ci kuréel wakkaana xaqan xam naa duñ guddal Serigne Khadim ginnaaw bi ñu leen nuyoo macha allah bis bi dellu seeti taxaw bi ngeen ci doon taxaw mu ñëw fulaat loolu tey jii ku fi ñëw rek wala ku fi teew rek sa xool sedd macha allah ci seen taxawaay bu rafet loolu tey ban jàngat tey ngay amaat ci bis bi nga xamante ni at mu yàlla sàkk yéen a koy amal te saa su nekk bu ñëwee dàq li fi jàll loolu nag ngeen koy jàngatee saa su nekk. Ah, asalaamaaleykum wa rahmatulah. incha allah mbokk taal bi sant bu baax. ñaanaat di ñaanaat eh, xéwal jàmm ak wér. ñaan sëñ Tuubaa sëñ Saliou Mbacke suñu borom yokku leeram baax a baax maanaam bi moom ñu ngi koy taxawal ci kaw ak Pastef rek ndax masalan ñun duñ ko dencal dara duñ ko dencal dara waaye dañu am yéene rek di si tudd yàlla ah, di ko jagleel lépp sëriñ mu sëñ Tuubaa ñu nekk barsaax Muhammad yi ñëpp waaw ñu ngi si sant bu baax na di at mu njëkk mi jàng nañ si juróom fukki kaamil ak ñaar ci toogaay bi te yaakaar naa at mu nekk da koy da koy foofa waaw ñun ñoo nekk ci wàllu berne xam naa ñun noonu lañ suñu borom taw natoo fu ñuy nekk rek ñu def ay berne ngir murit yëpp mën cee barkeelu te lool doon doon lu Serigne Saliou bëgg lool nag mm-hmm. ñu ànd seeg soxna kenn mi ak soxna yi ñu nekkal mbokk taalibe yëpp. di nekk si ay gox yu fasantikoo waaw waaye ñu ngi si sant bu baax ñu ngi xamal ne daanaka du lenn loo xam ne dañ koy dencal te bu gis bu ñëwee maam day jag ba da ba foofoo dañuy wax dool doolee Serigne kon nag ñu ngi sant mbokk yëpp ñaan suñu boom defal ñu jàmm ak xéwal defal ñu wér defal ñu genre daal ni gën a saxal suñu xol ci Serigne Touba faw ñu fas yéene di ko liggéeyal rek ba kenn ñu fiy jógee waaw li sax naan ma ko bàyyee kenn moom mooy gën a xam wàllu wàllu recettes yeeg yooyu ñu koy plat yi ñuy préparé chaque at ak sëñ sëñ Pape Seye moom. ñu ngi sant bu baax daal. jërëjëf sëñ Pape jaajëf. jërëjëf Serigne Khadim Gadiaga ci kàddu yu matala yooyu xam naa nii rek la mën a demee ndax day mel ni liggéeyal sëriñ Touba moom bu taxee jóg saa su nekk boo tegee sa pa beneen bay ñëw Serigne bi moo koy mottali boppam soxna kenn xam naa nga wax rek ci mboolem soxna soo xamante ni yaa ngi nekk ci kuréel Wakana Haqqan macha allah seen taxawaay rafet lool. ñu ñëwati rek sa xol seddaat ci taxawaay bi nga xamante ni mbooloo maa ngi koy taxaw at mu yàlla sàkk mu mel ni wàllu waañ wi yàgg ngeen ci day mel ni ren ji yokk na yokk boo xamante ni maanaam li ñaan liggéeyal sëriñ Touba am na tànk kanam la amul tànk ginnaaw loolu mu doon jàngat boo xamante ni ñàkkul ne am ngeen ko ci liggéey bi bu baax a baax a baax masibilahi mina cheytaani rajim bisimilahi rahmaani rahim ñu ñaanal Serigne Saliou Mbacke yokk ay leeram te ñu ci barkeem buñ nee sant Serigne Saliou tax buñ nee bernde it Serigne Saliou tax lii ñuy def nag dañ ko def ngir liggéeyal Serigne Saliou at mu jot ñi di ko def te at muñ ko defee rek mu gën a raw loolu moo lay wan ne liggéeyu Serigne saaliw bi ca kanam rek la jot macha allah moom mi moom liggéeyam bi nag yàlla nañu ko téyal. ba at mu jot ñu mën cee def lu kawe suñu njort ñëwuñu fi nag ngir fo ñëwuñu fi ngir ree dañu fee ñëw ngir liggéey ak jaamu yàlla sant Serigne Saliou mi nga xam ne moom lañ am tay ak ëllëg kon képp ku fi ñëw indi fi tawar yàlla na ko yàlla saafara ji barke sëriñ Saliou ku fi ñëw toog fii indaale fi say sa soxla yàlla na ko yàlla saafara ngir jëmmi Serigne Saliou googu ñun de Serigne Saliou demul ñu ngi nekk ak moom bis bu nekk di dund ak moom di di sàkku ay barkeem yàlla diñ ko defal kon sant nañ bu wér a wér a waañ wi nu nekk nag Serigne Saliou woo ñu ko jagleel liggéeyal sëriñ Saliou nag du bëgg a liggéeyal sëriñ Saliou sëriñ Saliou woo lay boole cib liggéeyam nga bokk ci waaye du ku jóg rek bëgg a liggéeyal sëriñ Saliou day tax nga bokk sëriñ Saliou kon ñun sant nañ sëriñ Saliou bu wér a wér a wér bim ñu boole ci liggéeyam bi at bu jot ñu di ko matale yàlla nañu yàlla may wér ak wérle fekke ak tal ba bis bu bis bi egsee rek ñu def ci lépp lu ñu mën te mu lew ñu doom nag ci barke sëriñ Saliou sant nañ sunu góor yàlla yi bu baax a baax a baax a baax ndax ñoom da jiital topp sunu ginnaaw mhm. kon sant nañ leen bu wér a wér a wér jërëjëf jëwrin ñoo ngi béggee bu wér a wér masha allah jërëjëf soxna kenn ci kaddu yi Pastef yooyu kaddu yu matale mbokk yi lañ leen loon ci waañ wi nga xamante ni ñu ko amal fii ci bis bi di ko waajalee ngir gan yi nga xamante ni ñoo fi ñëw ndax ndaje murit kenn munu koo waxte waxoo bernde waaye ku fi ñëw rek di nga yéemu ci bernde yu takku yi nga xamante ni mbokk taalibe yi waajal nañ ko ngir bépp mbokk taalibe boo xamante ni ñëw nga fi rek ñu mën laa toppatoo toppatoo mucc ayib kon xam naa fii la ñuy yemande géen ci waañ wi ne surtout ñu dikkaate géen suñu yeneen élément wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu